eh gars yi Sadio Mané mer na de Sadio Mané a frappé sur la table Sadio ne fëgg na taable bi wax na kaas na eh, dal na ci kaw gaa yi mais waa Barça ngir yàlla war a sori du ngeen jàppale João Félix dina dee ci ruqam googu de lu ne mu ngi koy wax salaamaaleykum amateur de foot nuyu nañ leen ku ci nekk seen tur. ak seen sant mu ngi noonee xibaar tey mercato 19 août samedi ci wàllu tàggat yaram mu ngi noonee waaye balaa ñoo ñëw ci Sadio Mané kàddu yu mu génnee wax ko après seen défaite boobee euh, dañuy dugg directement ci xibaar mercato yi soo ko ñëw ci sunu international sénégalais Sadio Mané waa baax saa gars yi João Félix mu ci ruqam Atlético génnee na ko ci liste joueur yi génnee na ko ci équipe bi bokkatu fa waaye moom nee na amul problème day dem bëggatu sax toog fee ca. Atlético Madrid mais mu ngi xaar baax saa ak ci ñeenti loxoom te it na loolu réewam la depuis tout petit mu ngi koy yàgg a wax di insister kon nag catalan yi jàppale leen ko ngeen di ko même bu dee da ngeen koy teg ci maa bi sax jël leen João Félix moom balaa muy xaru mu ngi noonu ma leen xaar gars yi ci commentaire ak est-ce que d'accord ngeen João Félix ñëw foofee ca FC Barcelone en tout cas attaque bi dina serré surtout ci flanc bi ngeen xamee ko noonu keneen ki nga xam ne jege na baax saa nag muy kan. za euh, Cancelo euh, mu ngi noonee actuellement nag Barça mu ngi avance ci mbiri euh, prêt avec option d'achat bi am nañ yaakaar que ni di City dina ko nangu mu ngi noonee ñu ngi ci dégg bu baax a baax li ci des bëreetul ay détails rek moo des pour Cancelo dem rejoindre FC Barcelone nag Xavi bëgg na ko Barça bëgg na ko waaye Cancelo dem Barça rek la bëgg malgré intérêt Euh, kookee di Arsenal moom nee na Barça rek la gis mu ngi noonee ngeen xamee ko noonu le jeune joueur de 2002 AC Milan nag mën naa ni am na accord ak moom total euh, mu ngi tudd Marco Pellegrini euh, défenseur la boo xam ne nii ñu ngi ko jëndee ci lu tolloog 3 millions d'euros ngeen xamee ko noonu une bonne nouvelle pour les Milanais kookee di Marseille nag kookee di Ruslan Milankovski Milankovski moom nag dem na rejoindre Genoa officiel ci 10 millions d'euros lan ko jëndee ngeen xamee ko noonu mu ngi noonee waaye di leen leer leeral que ni kooku di Philippe Coutinho Coutinho nag euh, doonoon ancien joueur Liverpool Barça Bayern Munich ba actuellement Aston Villa club Qatar yi ñu ngi ci teg temps ngir war koo mën a jënd mbir yaa ngi avancé Coutinho day xaar offre bu tegu ci temps. am na mille chance pour mu jóge foofee ci Aston Villa dem malgré sax club saoudien yi ñu ngi koy jéem a xëccoog kookee di euh, club euh, Qatar yi ngeen xamee ko noonu le jour boobee di euh, Eli wax yi moom nag mën naa ni dafay dem Lens am nañ accord total ci trente cinq millions d'euros Lens nag transfer bi na bokk dina bokk transfert yi gën a cher ci yim jot a def mu ngi noonu mu doon gone koo xam ne nii ñu bëri bëggoon noonu ko jënd surtout club yu mag yi waaye moom dafa préféré daal Euh, dem euh, tàggatu foofee ca Reims gën a yokk expérience bi nag Lens day dem Ligue des champions bu ñu jógee foofee gars yi dañuy dugg directement suñu international sénégalais Sadio Mané kàddu yi nga xam ne jot na ko génnee après seen match bi doxoon diggante euh, démb moom Al Nassr ñoom Cristiano Ronaldo ñoom seen ñoom Brozovic ñëpp woon ci biir malgré seen premier match ñoom dañoo manqué woon Al Ittifaq dóor leen waaye saajo génn ba ne défaite bi warul woon warul woon nag dañoo waroon wane fulla ak fayda gagné match bi nee na bu ñu gagné. non dañ ko mérité nag football ñu tax ñu war a gagné match boobee defuñu lu war a tax ñu war a gagné match bi raté nañ bal yu bëri te it équipe bu toll ne Al Nassr dañoo war di gagné quoi vraiment wax na nee na euh, dañoo war a football comme lañ doon football ca lii di coupe arabe bi nan ko jëlee woon loolu lañ war a indiwaat mais pas ñu seetaan nii ba ñuy gagné de matchs consécutifs de défaite c'est vraiment malheureux mu doon kàddu yoo xam ne su nekkoon na saa Sénégal génn ba wax ko wax ay juróom boo xoolee démb ci match ba ci bërki keroog benn sax. ni muy woowee joueurs yi naan leen ñëw leen yéeg leen bàyyi leen taxaw bi équipe bu doon ne Al Nassr warul di taxaw quoi day taxaw di leen xëcc noonu di leen kii di dawal leadership naan leen ñëw leen ñëw leen football. da koy gis communication ci biir terrain bi mais peut-être ñooñu euh, niveau bi nga toll ci football mondial xam naa fa lañ tollagul yéen nag yéen leen ci jàppale ñu dem ba adapté wu ba rythme bi doo xaar sax nga naan leen ñëw leen football mais avec le temps ñoom sax ñooy ànd footballandoo et tout li nga tàmm fële mënoon da tëb tëb rek gis ko fële nag niveau yi bokkul mu ngi noonu mais avec le temps gëm nañ ne joueurs yi mag bu ñu demee ba duggante ak ñoom seen niveau dina évoluer nànk-nànk mu ngi noonu en tout cas l'apport daal war na gaaw ñëw foofee ci Al lu ko mooy. rideau mayka bi dana gën a yaatu xam nga ay espace yu ndaw loon espace yu rey la nar a doon bu ko defee bal fu mu jaar dugg ngeen xamee ko noonu gars yi loolu moo nekkoon xibaaru mercato tey 19 août ci wàllu tàggat yaram képp koo xam ne nag abonné goo suñu chaîne YouTube c'est simple dugal suñu bio TikTok nga bës logo YouTube bi mu yóbbu la directement chaîne YouTube bi nga abonné activé cloche di seetaan vidéo yi ba mu jeex jàmm ci ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci الحديث أسفا مما ومما يجعلون ما علينا سعيدا جرزا أم حسبت أن yàlla yàlla def na ko ñoom ñoom. macha allah. yàlla na yàlla def ay Sinoa. ngeen mokkal alxuraan. tey jii dafay seen yaay ndax mokkal alxuraan moom seen yaay dañu kontaan vraiment. loolu mooy leen bu baax a baax. si yaa tur macha allah. yàlla na yàlla def ay Sinoa. Sinoa def leen ay bëccëg yal na yàlla fay leen dégg ngeen yal na yàlla fay leen ci way yi ak jàng alquran